ubbil yéenekaay bi xëy na naka fësal fa joomaay ak la nga xamante si nee moom la am ci alal yéenekaay bi mu ngi ñu xëy naka di ko limal benn benn joomaay nag nee dafa lebb ba fees del waaye naka riche na yéenekaay moo ni ko waxee nee na naka këram goo xamante ne mu ngi jar deux cent soixante quatorze millions ak lu topp terrain bi mu jëndee ko cent quarante millions tabax ba naka dikkee ko cent trente quatre millions ak lu topp salaire woo xamante si daanaka jege na juróom millions ak bor yoo xamante ne si mu ngi toll ci fanweeri millions ak benn terrain wu quatre hectares woo xamante ne si la mu ca investir toll na ci quarante quatre millions ab bi nga xamante xamante ni si waxoon nañ ko jamono ji nekkoon candidat boobee oto naka kenn gisul ko ci mbir mi waaye itam bor bu nga xamante ni waxoon na ko ci jamono joojee tolloog ci fukki million loolu itam yéenekaay bi nee na maraas naka kenn gisul ko yéenekaay bi ne joomaay naka bu waxee ne fi mu toll nii am na bor waaye naka jàpp ne naka moom joomaay moomee xam na ne riche na lool maanaam poche ba duuf na lool libération yéenekaay ne ko président la république waxoon naka defee na ko noonu jël na li nga ni si moom la am ci yàllal yëpp becc ko ci taabalu mbedd mi ngir ñëpp xam ko moom joomaay fay naka passé na à l'acte yéenekaay bi xëy na ko di ko fësal ñu bëri na naka dikkaat yi yéenekaay bi ne fi nii moom Diomaye naka lam waxoon def na ko c'est président sans le chou yéenekaay bi ne président la waaye naka amul benn weccet woo xamante si moom la am gën caa tuuti la muy fayeeku moom Bassirou Diomaye Faye weer wu ne naka mu ngi toll daanaka lu jege juróomi million suñu koppaan waaye Le Quotidien yéenekaay ne déclaration de patrimoine boobee Diomaye nag am na lu si affiché yoo xamante si ay moomeet la ay ngi tukkee bëgg naka fi nga xamante si moo ca luuma ya ndax mbir mi naka commencé naa métti la tax kon naka ba ñuy dëkkee koo gi naka bëgg fi ñu naka état gëstu leen ci mënu gën a gaawee laataa rek ñuy basar basaree li nga xamante si moo di alal koo gi kay nii rek chaque jour seetaan leen la dépêche yéenekaay ne relance naka ci usine textile foofee naka ca Kaolack sëriñ boobu naka fi mu toll nii nee na nag daanu ko jàppale état daanu ko jàppale naka fi mu usine boobu naka mu dal am ab mucc ab boo xamante ni si dana ko dal def ngir naaw bi nga xamante si toog na ay fan liggéeyul sëriñ boobu naka bëgg koo dekkil yéenekaay bi dikkaat na ci ñu dikkaat ci jéey yi nga xamante ni si gaanaka mu ngi bëgg a yóbbu laabi si na wi ñoo ngi bëgg a jeex ci tali bi niki démbooti naka rot nañ ci tali bi bi ci gën a métti am ni démb yéenekaay bi na yéenekaay bi ne fi mu toll nii El Malick Ndiaye ñaamu ca juut baaraamu tuuma moo di rek ñi nga xamante ni moo di chauffeur chauffeur si nag nañuy dawalee nañuy dawalee tegginewul jaaduwul moo tax nag ministre bi ne fi mu jël ci ay matuwaay nag jot na sëkk yéenekaay ne gën taa tuuti ni démb foofee ca Louga fukki bakkan ak benn rot nañ juróom ñeenti am ci ay gaañu gaañu ci accident boobee Mimi Touré yëkkati ay kàddu ni fi révolution coppite dëgg nag mi mbir a kaay mu ngi xëy di ko fasal nee na 402 ñoo xamante ni dugaat nañ ci gaal gi niki démb lañ leen lekk ba jàpp foofee nag fa tolloog Saint-Louis ay gaal gi kañ lañ koy baax ñu ba dal ci enquête yéene kaay ak caaroy 44 travail mémorial yéene kaay bi ne la France mi fig mi raisin yéene kaay bi naka fintoon ni juróom benn tiraay Sénégal yu xamante ni si nañu leen gannaaw nag bi ñu jàppee ne fintoon dañoo dee ngir réewum France Caaroy 44 professeur Mor Ndaw historien militaire moom la mu xalaat nee lii jàpp na ne ab fardeau dëgg la ci ñi nga xamante ne si moo di réewum France Sud Quotidien dikkaat ci concours général au rendez-vous des cracks ni nag daanu xam ñi gën a ràññee ñi gën a xarañ ci wàllum njàng nag yéenekaay bi ne fintoon yi tey jii lañ leen di neexal ci kanamu président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak i naataangoom Malick Gakou Khalifa Sall Mamadou Lamine Diallo Bougane Gueye Dany Amadou Ba yéenekaay bi xëy na loo fasal ndax am na si ñoo ngi si ñoo ngi si moo am ci seen Sénégal yéenekaay bi ne naka limba mboo koy yokk rek fintoon yi daanaka jege na cinq cent mille ñoo xamante si daanaka ndóol googu laal na leen de ñu bëgg naka fintoon yi saafara goo xamante si warees nañ ko mun a indi ñu wax ci jéey ji nga xamante ni ci moo am foofee ca Thiès benn waaye daal moo jël ab jaasi jaasi la jël naka jal dee corote ki nga xamante ni ci moo di yaayam foofee rek la ñàkkee kanam waaye nag moomee nga xamante ni ci moom yaay ja dañoo jàppoon ne moom dafa amee feebaru xel cay senegal chaque jour ak dossier bu bees mbir maa ngoog ñoo ko déggandoo jàngeen jëf ba ëllëg